du ñaan du tàllal du leb tey noonu la ko sëriñ bi bëgg bëggee muy jàppale leen ci ab liggéey boo xam ne euh, moo xam ci seeni fànn yi nga xam ne secteurs yi ngeen xam ne am ngeen ko ay jumtukaay yoo xam ne mbokki taalibe bi gën ci mën a yëngu di am lu ñu mën a dundale seen waajur di leen jàppale jàppale tamit koñ bi ci wàllu sécurité sécurité moom mi ngi tàmbalee ci lam alhamdulilah rabbil alamin ndax fu leer moom ah, yenn ndaw ku ndaw yi dañ fa jaar ndax xam nañ fi leer na ci jàppale gi la ca des moom junj doy na borom xel ndax yàgg ngeen dem ci barab xam ngeen la xam ne ñoon leen yeeyoo bu ko defee la Serigne Saliou waxoon rek lu ñëpp xam moom loo ci wax doy na wax ci tuuti doy na li ci des samay kàddu di bopp la mooy di leen sant te di leen gërëm bu baax a baax Baye saaliw jël leen xéewal yi jël leen xéewal yi taxawal jël leen xéewal yi bàyyi teelul waaw jël leen sëñ Tuubaa na ne akrimo bay fa isa ataakum Euh, léegi cant yi mooy mënoon naa dem di ko sàkku mu xaw a jafe waaye alhamdulilah rabbi alamin lépp yomb na lépp yomb na lépp tamit jàppandi na xanaa kay ñi ñaan ñu dolli di ñaanal Cheikh Abdoul Ahad gudd fan ak wér-gu-yaram di leen ko ñaanal yéen nga xam ne teew ngeen fi te di ko wax na nag dafa am lu ñu jublu loo xam ne mooy élection présidentielle loo xam ne moom dafa am koo xam ne bu soñoon mu am ndam mooy président Macky ndax Cheikh Abdoulaye moom lay jàppale loolu nañ ko bàyyi xel te loolu dama ba ngeen tàcc bu baax te déglu moom ci kàddu yooyu parce que bis booba du xeex lan mooy bis ba sa bi nga xam ne am nga ko muy sa carte d'identité ak sa carte électeur nga sangu ba set ko ba jekk oto yi ñëw nga dugg ci dem ci sa bureau xam ne sa candidat bii ginnaaw yàlla moo tax ki nga xam ne jàppale la mu jàppale la ndax sur le plan politique dañ koy leeral loolu la danga may jàppale ma jàppale la nga dem ba ci indi ba jël kàrtam nag waaxu dugal ko nag loolu mooy ndam li de bu ko defee mu am ndam Cheikh Abdoulaye am ndam ñu ci def am ndam kon ñoo ngi jéggalu wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu ak ndaw képp koo xam ne yàlla may na la carte carte d'identité comme ñun dañoo waroon a def parrainage yàlla def ne bi suñu affaire di di mat mbooloo mi ne daje parrainage si mat bañ déposé candidat ba nga xam ne parrainage si amatul importance léegi nag li ëpp solo mooy acte bu noble bi nga xam ne moo ci des nag mooy ñu fonk suñ kàddu nag te gore nag xam nga urne ba xam na lool mhm. te kenn du fa accompagner kenn waaye nga boo jël carte bi nga yëg ne man góor laa de du ma wor ki ma waxante woon ba mu indil ma lii te dig ma leneen wallahi azim dinaa dugal carte bi ngir suñu borom may ko ndam kon maa ngi leen di dénk muy góor ak jigéen mag ak ndaw képp koo xam ne nag am na mbooloo ci koñ muy muy association wala euh, mouvement boo xam ne nekkoon nga feneen ci yeneen candidat parce que tamit ah wax dëgg yàlla bunt bi xam na ba ñëpp xajandoowuñ fi fanweeri xajandoowul ci benn bunt ñi mën a dem rek kay dem waaye nag boo bu la wéree ne ñii ñoo mën a dem te nga amoon fii ñoo jàppale te ñoo ñu jàll maa ngi leen di ñaan mbooloo mu mën a rallier ñëw na ñëw ci mbooloo ndax kan mbooloo mooy doole ajamaatul rahma bu ko defee ñu jàppale Cheikh Abdoulaye mu am da ñu nit bëgg ñu am ko yàlla jàppale ñu zaahir wa baatinam kàddu yi may bañ mu gudd ndax guddi na wasalaamaaleykum wa rahmatulah. bismillahi rahmaani rahim. asalaamaaleykum wa barakaatu. yéen mbokki jur yi daje yëpp mbokki maa ngi yëkkati nuyoo boo xam ne ma ngi jóge ci maire Abdoulaye ko teg ci sa loxo yow sa Moodu nga teg ci loxool kilifa gii ma dendal di sëriñ Assane ak mbooleem kilifa yi toog yëpp nag góor ak jigéen mag ndaw di wax ne li fi jot ci kàddu kàddu yëpp dégg nañ ko tam matale sëriñ Assane ñoo ngi lay sant bu baax ni nga ko waxee suñ diggante ak yow démb la woon ñii ay tuut tànk Serigne Assane moom maam Cheikh la Fall di sa maam jur sa wàjjur soxna Jee Fall loolu lu ma leer la yàgg sëñ Modou Kara ak soxna Ndey Sall ndax man mii sama wàjjur wu ndaw Serigne Assane nda ko yor am na ñaari gone indi di ñut ba lii ngay waxee ak liñ jàpp ci yow ñu ne xam nañ ne loolu nga gone woo mage ko mosoo amee caaxaan soo wax lu nekkul ci yow mosoo am ñu gëmit lool di fekk ñu def fekk te njaboot gi ndax kii di wax muy Modou mi sama jarbaata soxna si saaw ñoom lañ nuyu yéen ñëpp bokk yi suñu bokki bokk dañ fay nekk ak bokki taalibe ñoom nuyu ñëpp di sargal ñëpp léegi di kàddu ci kàddu monsieur le maire di leen sant yéen waa gox bi ci lii ngeen di wax ne def na ko bi nga xam ne lu ko war la ñun nag dana fekk lu ko war la du ko def mooy làmp yi nga xam ne fépp fu nekk ci Touba gox bu na moo ko war a leeral waaye bi mu defee lii ak na muy néew néew ci moom teewul yéen yëg ngeen ko lool te fonk ngeen ko lool as gor nag loolu mënu ko weesu la ko defal mu néew mu bari mu xam ne defal nga ko donte da koo yeeyoo li ngeen wax it lu ñu dégg la mooy du yem fi mukk ci àdduna ku ne xam na nag maire yaat na yaatu goo xam ne pànqaas yu bëree bëri la rawat na Touba fii ba tubaa Belel ci tubaa la bokk fii ba Touba Bogo ci Touba la bokk ak yeneen ak yeneen kon xëy na defe noonu lépp dana jafe waaye nag dana ñuy góor góorgóorlu wax bu ne lañ ci mën def ñu di ci lu lam ci mën def ci def waaye ñu leen wax ne lii ngeen wax muy ci làmp yi sëñ Fallou Fall muy ngay wax ma xam ko bu baax a baax di sa mbokk di kilifa maa ngi soog xam ne mpéj fii la nekk moom maire bi xam naa léegi ko web di ko teg ci loxol kii ma fekkoon di Serigne Saliou Gueye di chef de village bu Xayra bu fa jógee ñu tëkk ci loxol soxna Awaka mu tegal ko ci mbooleem njaboot ñu nuyu Xayra gépp sant Xayra gépp di wax ne maire moo bëgg na ñëwal boppam waaye léegi rek dafa am ay gan yu fa ñëw. ba moo waral ajjugum ñëw fii xaw am jafe-jafe mu ma kon li muy xat-xat da ngay dem soo demee nga jël sama kàtt xaayra bi yaakaar naa ne amuñu lu ko ëpp ñun ci Touba muy Abdoulaye Ka man mii di taxaw 1979. naa ubbi bitik bii ci gën lay seqa yaakaar naa ne ku miin la tey lépp lu am danaa yàlla ci xayra dañ ko suñu borom kon yaakaar naa ne maire yi itam yëpp mooy lépp loo xam ne war nga ko def xayra def waaye nee na li muy ñaan yàlla yéen ñëpp ngeen nekk benn bopp jàppoo. ba am koo xam ne dañu jiital kooka nag di dox diggante jiib ak moom ndax day am loo xam ne ci administration lay jaar lu koy maye mooy këyit ak am njiit projet yi ngeen wax financement yi dégg nañu ko waaye fokk ngeen am ay groupement di ko andi ko dana waral lépp loo xam ne bëgg leen ko ci matériel mën a jaar foofa doon na mën a yéwénal mbiram ngeen jéggal ko nag ci yi ba tax na xëy na kenn ku ne la nga bëgg jege moom wala xam na jafe waaye mi ngi leen di xam ne mi leen bàyyi xel guddi ak bëccëg di nuyu jigéen ñi xam seen ak njàmbaar seen góorgóorlu du nuyu xale yi góor yi muy soles bi di leen bàyyi xel neer nee na liggéey bi nga xam ne sëñ Tuubaa jox na ko it buñ eggee lu mu ci mën a dugal ci ay xale yu góor yi nekk ci ko ñu xaayal ngir liggéey ci incha allah fas na ko yéen. nee yi itam yéen jigéen ñi loolu mu wax muy groupement yi su ngeen ko defee dina ko jàppalal digganteem moom ba lépp lu ci man dana ko jéem wax ngeen ci lu jëm ci lamp yi ak yeneen yu bëree bëri yoo xam ne xamal na ko boppam waaye nag Touba dafa doon dëkk boo xam ne am réew ndax fii ba Touba berel fii ba Touba ci Touba la bokk kon boog tool bi toujours ñi ngi bay rek. buñ agoogu da ngay jàpp ne mbayam gi mooy ak seegul waaye ñu ci yoon wi li nga xam ne it nag mooy lii tey Modou Mbacke fi jóge léegi wax ko mu jëm ci mbirum président de la République maire Abdoulaye Kane kenn ku ne xam na du politicien politicien waaye kuy jàppale président la ndax li ko waral politicien moom soxla doon ba muy député wala ministre loolu nag soxlawu ci lenn moom waaye nag yàlla dafa dogal sëñ Tuubaa jox ko dëkk bi ab dëkk nag état moo koy liggéey. bu dee tëli état ko man bu dee courant état ko man su dee ndox état ko man kon foog mu ànd ak état ngir mën a li ko nga xam ne itam moo fi nekk tey di président de la république waaye waaye nit ki loo ko bañ bañ nangul ko nag lan baax la ku ne xam ne ne président bi fi jógee ku baax la Abdoulaye Wade taalibe ci lépp ku ne xam ne si woor ak sëñ Fall ne xam ne Abdou waaye ñooñu ñëpp la ñuy baax baax nag Macky Sall def na fi loo xam ne ñoom ñooñu kenn mosu ko te moo la day mën nañ ko yóbbu Kaolack mën nañ ko yóbbu Ndar mën nañ ko yóbbu feneen waaye ñaanu sëñ Touba bu yàlla nangu la moo tax mu ëndi ko autoroute Ila Touba kon ngelaw nañ ko nangu loolu assainissement boolem li wër jumaa ji ñun nag xam nañ ne def na fii milliards ngir ndox assainissement nag moo yëngu hôpital bi ku ne xam na ni mu bourse familiale ku la xam na ni mu wax dëgg yàlla mi ngi góorgóorlu li mu mën kon loolu moo tax ma Abdoulaye Ka jóg war a ànd ak président Macky Sall ci loolu mën a jàppal ak it nag day xaritam démb ak bëgg dem ndax ñun ñii di wax ak yéen ba suñu mag na leen ca tubaayam bi Macky Sall di ñëw di ko tubaayam di jaar suñu boobu xamaguñ ne dana nekk président de la mbokk nga lépp nga waaye xam na ne lépp lu mu nekk ñor leen te jóg ngeen ci di ci teg soxna awali di ci teg soxna astuka loolu yi nee xam na ne fépp fu mu nekk rek bu geesoo gis leen gis seen góorgóorlu seen taxawaay mi ngi soxna mi seen nag soxna bint saaw nee na ngeen góor a xam na yéen yéen a war a jiit ñu topp seen kaw lépp lu ngeen gis ko dafa na ngeen ko wax da ngeen sonn da ngeen ko loolu waxoon na naa ko wax ci digg nit kon loolu ay kat loolu yoo xam ne dañ na woon nañ ko kat am na nañ ko bëgg woon lépp nag bëri wul ko noonu waaye ñuy jéem ak yéen loolu tax na sàmm ñoo ngi leen di bu baax a baax di taxawaay ndax sama kanam nga nekk boole fii ci xaar ba toll nga toog xam naa li fi li fi nekk lépp xam na Baye Saliou Gaye ñoo lay ziar bu baax yaag sunu wàjjur la woon ci kër Serigne Saliou kon sunu wàjjur nga di man addaat mu wéer a wéer a lii boolewul rek lii nga doon. démb la woon yaag maamam te kër Serigne Salim ñoo xam nañu yaay kan kon ñoom lay jox sa cër di la jox sa wàccuwaay di xamal waa xaayira kilifa gu mat kilifa muy Baye Saliou Gueye waxtu boo ko gisee maire yi benn baat boo ko ñëpp xamul muy dëgg luy jëriñ population xaay rek lay dox te moom lay wax moom man maa la koy seereel man mi nga xam ne damaa nekk ca maire ba chargé de mission loolu moo ko wóor ma Baye Saliou Gueye kon jërëjëf kon loolu laa ne woon ak yàgg dig ñoo ngi jégalu lépp Cheikh Dione yi ñoo ngi lay ziar yéen ñëpp comme ça ñu leen di ziar di bëgg ci yéen lool di di di kontaan ci yow nag kon wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatuh jërë ngeen jëf waaw soxna soxna Ndawa yow soxna Ndaw xel day fàttu ak yàkkamti gi waaye lu mu xat-xat na nga xam ne bu ñu tuddee ak bu ñu tuddul yow soxna Ndaw kenn demul nga def man day maa leen yar fii. waaye li ma xam ci yéen ami def naam dig laa mooy li ngeen di def askan bu ko wees seen ak seen jom ak ñàkk rek aussi ne tëdd loolu ngeen leen xam soxna Ndaw ñoo ngi sant di la gërëm di sant euh, soxna Amina di sant sa borom kër Moustapha Laam di sant ñëpp ñoo ngi lay sant di la gërëm asalaamaaleykum wa rahmatulah